Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dino ay maqaam yàllaw auzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil umi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bisimilah ini waliyallah jërëjëfe borom tubaa xadim rasul jaraw lakk maam cheikh ibrahima fall lamp baal muridina téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre émission bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro mbégte la ñuy am tey dellusiwaat ci beneen numéro seet si suñu xarit macha allah suñu jigéen waaye itam suñu suñu suñu suñu njaatige ci wet su ma ko waxee am na lu tax ak la ko waral xëy na dinañ ci xuus te kanam bëgg jukkiwaat lenn ci li nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko ngir jaglelaat ko askanu senegal góor ak jigéen mag ndaw kenn ku ci ne fu mu mën ne ci biir mi rek ñu fekk la fa nuyu la ziar la ne la jàpp suñu loxo waaye nuyoo beeg siyaar bi tam dañuy jël teg ko ci loxo xalifatul am fi tarixatil murida cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu cheikh Madul Bachir ñaanal ko yàlla sama borom saxal ko fi yàggal ko te wéral ko ba teeñ yan bi nga xam ne moom moo ko suñu borom yan mu teeñalal ko boppam ba mu àggaleek sagoon ak njabootu Serigne Touba yëpp. soxna Xawa mu Cheikh Abdoul Karim wala ma ne soxna Xawa mu Serigne Fallou wala ma ne soxna Xawa mu Serigne Touba. ñu ngi lay nuyu di la dalalaat ci sa biir émission gannaaw ni ma ko waxee xaw ma soxna Awa mu sëñ Fall wala mu sëñ Touba sotti ceeg def ci daal lay bëgg niru nag. xaw ma nag lépp waaw benn la de. waaw mën naa ne de waaw benn la daal. <laughs> tubaarkalla. Mbacke Balaye sa buy moomu man daal nuyu naa Sénégal yëpp. nuyu àdduna bi nuyu tamit samay mbokk ak samay am di jàmm. Mm-hmm. di nuyu nag mbooleem tarixa yi. macha allah waa kër Cheikh Ahmadou bàmb Xaadim Rasul fu nu toll nag. Mm-hmm. di sant sañ Touba bu baax. macha allah. di ko kennal fu mu mm-hmm. mu nekk suñu yaakaar tey ak ëllëg. waaye nag am naa kontaante tamit si sa teewaay fii. ndeysaan macha allah. yow nag fàlloo nu boole. <laughs> walaay lazim. xëy na loolu duñ ci sori. déedéet. waaye ca kanam danañ ci xamee. incha allahu rabi yëfi biir la. <laughs> yaa waaw mi ngi noonu. <laughs> yaa ma yaa ma gën a comprendre. ndeysaan macha allah mbir mi. Mm-hmm. tubaarkàlla macha allah. Uh-huh. mbégte la ñu am wax dëgg yàlla benn boo ci bëgg rek ñun bëgg nañ ci fukki yoon ndax ni nga ko waxee rek sëñ Fallou nu boole xëy na liggéey bi door a ci wuyu si wala bu fekkee liggéey bi ubbi bunt bi tamit sëñ Fallou daal moom moom moom moom moom mooy base bi daal fi mu toll nii. macha allah yàlla nañu yàlla nañu sàmmal kóllare gi. waaye sàmmal ñu tam mbooleem lépp loo xam ne rek war na cee rafet ci kattanam. Mm, ñu njëkkanteeg waxtu bi rek daal di bëgg a waxtaan. Uh-huh. ku xam soxna Awa ko ci dal xam ko ci teey xam ko ci yàkkamtiwul dara ci àddunaam lu sabab loolu sabab loolu dama bokk ci famille bu am ngëm-ngëm mm-hmm. famille tamit bu dal famille bu maandu fekk taxul nga nettali mm-hmm. xam taxul nga wax sama maam bi ma yar nag def ci man lu bari waaye nag li ma mottalee tamit sama baay ju baax ji jëpp la moomu yóbbaalewul gàcce mm-hmm. dénk na mu lu baree baree bari ci lim ma dénk tamit maa ngi ciy jëriñu bu baax dal gi daal mën naa ne ci samay mbokk laa ko jëlee waaye tamit bu dul dara murit gi ma doon tamit moo mm-hmm. ci nekkee fow nga ànd ak dal ak yar mm-hmm. comme ni ko sama sëriñ bu baax bi di waxee balay sa bëri mhm. sëñ Abdou Karim moomu macha allah góor gu rafet googu mhm. soo ko xoolee sa xol day sedd wallaahi naa xool ko rek mhm. jarul tàllal mën ngaa dem yegg tamit taxul sax nga wax sa soxla yow yeggal rek te toog te xam ne lépp dina sotti dal gi daal li ko ëmb daal bari na macha allah tubaarkalla am na solo lool fa nga bokk wax nga ko wax nga tamit sa sang bu baax bi suñu sang bi sax laay wax. Mm-hmm. moom waxuma la waxuma la ni nga ko waxee rek jàkkaarloog moom ndax sëñ Fallou daan toog ba yàgg dégg naa ci mag ñi liñ ñu nettali. Mm, waajuram bu tedd wa sëñ Fallou daan toog ba yàgg daal ne waa ji wax leen soxla mu dugg ci nopp bi. <laughs> su ma ko su ma ko mënta def sax waaye dugg yi muy dugg sama nopp suñu borom dana ma ci rus ba def sa faj sa faj soxla yooyu. kon dal gi moom boo bu fekkee cosaan la dono la ci ci ci say waajur ëlbatikuwaat nga bokkaat ci njabootu Cheikh Abdoul Karim macha allah ku ko xam-xam ko ci dal mën naa xëy suba ba jant bi sollu wax wala wax ja bu waxee ñaar lay doon wala ñett. Mm-hmm. miin ko cam ci jëmmam macha allah kon yal na yàlla xeeb dolli te gën a dëgëral taxawaay bi. te gën a euh, sàmm la ba yéene yi nga am ci ëttam boobu itam sama borom defal la ci lu kawe sax jot ci daraja Cheikh Maodo Fadal beneen bi ci topp ñu gis soxna Awa ci wàllu seet lu mu la ci wax takkal téere alaakulaa leen teg ci sa bët dono la gëstu la jàng la wala lum doon. waaw su ma su ma ne donn la mooy euh, ci waajur yu baax laa jóge mhm. comme li ma la wax mhm. xam taxul woon ñuy wax mhm. walla gis taxul woon ñuy nettali waaye man xëy na ci sama gént ak liy ànd ak man dafa may dikkee nit nag fu mu toll. ndeysaan. pétaaw yi nag. man xeet gi ma bokk bëgguñu ko. duñ ko def rawatina sama kër baay. ba ba nuy dee ñoom duñ ko def ndax ay bañkat lan. yàlla nattoo ma ko nag. ndeysaan. may gën a nekk tout tànk su ma ko doon def sax bu ma seenaan sama waajur wala kenn ku bokk ci famille dama koy kersawoo dama koy nëbb. ndax xam ni mu mel ci ñoom. ñuy am ci mën na yërmande boobu parce que lu leen metti la mm-hmm. damay damay dox di for par benn benn bu ci nekk nag mën na yàgg distance bi distance bi mm-hmm. benn bu ne dama koy for ak nu ma koy foree nag mm-hmm. xëyul rek doon pettaaw nii rek may seet déedéet samay xarit laa doon njëkkee di defee. Mhm. balaa may am lu ma soof sax nga ne ma seetal ma. <laughs> te ma xam ne am nga soxla bu la ñor képp te nga war ma koo mën a wax ma defal la ko. Mhm. moo xam dama lay may moo xam danga may fay. Mhm. moo xam da ngay def sarax waaye foog nga xool seet ba pare ba seet gi doy la. doog a wax liggéey te xamuñu ne foofu boo fa tolloo amatoo yërmaande ci nit ki parce que xamal nga ko lépp. te bu ñëwoon nëbb léppam parce nit. bëggul ko ko xam. Mhm. waaye boo ko xamee rek day mel ni mën nga ko. foofu nag yërmaande du fa amati torop. Mhm. ndax day fekk ñu xam la. ci kaw ñu yërëm la dañuy gis ne ne war nañ laa yaram yërëm la. Mhm. waaye suñ gisee ni it ku doy waar nga ñàkk nga sens si ñun. am na ñoo xam ne nag dañuy ñëw rek wax la seen soxla. seet gi daal noonu la demee. macha seet gi tamit nekkul loo xam ne dañ may rang. <laughs> non loolu dinaa ci ñëw parce que parce que am na lu ma ci xam. waaw parce que nit woon dama kalaame ma ne ma li ma jaaxal ma ne mu ma maa ngi bëgg mu seetal ma fan yii yëpp waaye heure bu ma ko wooyee mu ne ma ba daal kenn du ma rang kenn du ma taxaw. te sëriñ si dama gis sëriñ su bëri wala seetkat yu bëri wala ñaankat yu bëri bala ñoo gën a kontaan jàpp naa ni seen dañoo xëy seen ëtt yi nit ñi rang leen. ah waaw mais man yow gis naa ni ñaari nit sax duñ fi daje. ah duma ko nangu. lu waral loolu. xam nga rab dafa soof. Mm-hmm. ñuy maslaa moom ci jikko. te bëgguma moom mu di ma yaay. Mm-hmm. ndax man damaa am fulla ba nga xam ne bu rab ñëwee dina ma wax lu may doyee. ndeysaan. ni nit ki tamit ni muy ñëwee ci man di ma wax soxlaam. Mm-hmm. bu ma la doon seetal te gisuma la dama lay delloo sa xaalis. te loolu moom. am na ñu ko xam ci man. Mm-hmm. parce que mënumaa liggéey bi ma nekkee xale ba tey. Mm-hmm. rab ànd ak man. mu mm-hmm. judd nag suur lool. suur ba regg. lii feeñu ma. ma ciy ànd ak sama ngor. su ma ci xoolee luy lu ndaw rek loo ma ciy bëgg xeebe wala dama ko yebe ma delloo la sa benn junni bi ma fay. man bu jëkkoo ceddu gi ñëwee dama lay delloo xaalis bi <laughs> nga imaginer ne yow da nga paas ñëw. looy dox di làmbatu ak di seetlu. ba nga war a ànd ak sa ngëm-ngëm. mu mm-hmm. seetal la nga mm-hmm. fay dem. Mm-hmm. mais foo fekk kuy làmbatu moom da ngay wax mu ne tekk mel ne niir bi te seet dafa ànd ak wax. parce que waxtaan la. bu waxee da ko war a tontu ci loolu pour mu jàll ci leneen. waaye am ñoo xam dañ naan tekk ba nga pare lu ñuy wax ñu doog ko wax. man nag des fois soo ma defee noonu ma xam ne seetlu am na ci ndax man sama seet soxor na soxor goo xam ne man duma ci feeñ. Mm-hmm. yow boo toogoon ne may seetal ki yow doo ci feeñ. Mm-hmm. comme am ñoo xam ne boo tegee seen pettaaw fu nekkee nee sax day génn ci seen. Mm-hmm. man sama bos damaa tëj lépp. ok yow moom boo dof dofloo ba dugg sama kër yow ko yaay feeñ ci set gi. léegi nag su ma la gisulee day yomb. parce man sama bopp duma ko yëg. dama lay delloo sa junni. kon ki ngay seetal yow da ngay yëg li nga koy seetal. man dama koy yëg. parce que lii may wax nii dama ko dund dafay mm. neex ci ma nettali ko <laughs> su ma lay seetal te yëguma la noonu laa mm. nekkee tam ci match football ma mm. sentir na match bi amul rythme ma woote mm-hmm. seen match bi amul rythme nga ne ma bébé dañ noo domine kon ñu xam ne man maa ngi ci match bi mm-hmm. parce que man woow ma waaye man yëg naa ne fi ma toog nii maa ngi keru macha allah seet gi tam noonu lay ñëwee ci man mm-hmm. mais du ma la jox sa junni nga dem sa yoon li ma ci met parce que dama la ko war a delloo ndax paas bi nga paas aller retour 4000 francs mhm. tooñ boobu rek dafa doy sëkk. Mhm. ma seetal la ñàkk la gis wax dëgg yàlla man loolu du ma ko def. du ma nelaw sax. Mhm. mës na ma dal ci benn koo xam ne bitim réew la. kooku moom dafa ma yéem sax man. ndax man seetal naa ko te xam naa ko wax dëgg yàlla su ma waxatul jërëjëf waruma diingat nee na ma soxna si seet gi satisfaire woo ma dara. ci tubaab noonu la ma ko waxee. bis bu am waaw. Mhm. audio yi yëpp maa ngi ko denc. Mhm. sauvegarde ko ndax ëllëg laay suur. ndax man damay dem te xam naa ne moom duma ma téye te keneen du ma téye te ginnaaw média bi moom lu nekk la ñuy wax. wallaay ndeysaan. ma ne lii naa ko garde ngir ëllëg. Mhm. parce kii xaw ma ko. ma ma ne ko léegi comme te yow seet gi kontaanoo ci. te man xam naa ne li ma la wax moom lu ma leer ne lii ma la wax moo am. nan laay def ba yónnee la sa quinze mille te comme te danga ma ko orange ma ne woon. boole ma ki ma ko yónnee woon ma delloo ko ñetti junne lépp maa ngi ko denc parce que man xam naa ne mhm. wax na lu ko neex rek lépp maa ngi ko denc mën na ko nu may def ba delloo la sa quinze mille mën na ma man lii am rek laa wax ma ne ko d'accord mhm. waaye man ba may bébé ba tey mhm. mun a maa mën na ko sama fit foo ko takk weesu na ko moo waral sama dal gii ma dal. kenn nekkul sama wet. Mhm. kon lu ma rab dékku rek mun naa koo jël. bu aajo ma dee sax ma dee ndax xam naa ne yàgg yàgg damay dee. waaye samay doom commencé na nekk mag. Mhm. ma am lu may moytu lu bari. Mhm. waaye man seet dama doon dem ba xam ne feebar naa doog ko commencé def. boobu mi ngi ñëw ci yow ngay bañ. maanaam daf ma soof daal. xam nga liggéey bu nekk am na lu la ciy soof. wallaahi wax nga tey boo dajale liggéey yi may liggéey yëpp man balaa ma am lu ma neex nga ne ma tey danga am mat su football. Mhm. man dama ci am ndégte soo ma yéexee woo ma sawar damay dugg taxi dem xoolal sama bopp match bi ni muy demee loolu mooy li may kontaan loo mhm. moo ma gënal benn nit bu ñëw ci man pour ma ñaanal ko nit ku nekk am na lu lay neex ci sa liggéey mhm. parce man de boog sama liggéey bi dafa sëree ci man sëree boo xam ne mhm. su may defaral nit liggéeyam war ko génnal ay saraxam mhm. def lépp man temps bi muy jël man su ma paree du ma mënati dara moo tax suñ na ma yow lu tax duñ la ran comme sa morom yi et mhm. pourtant yow xale bu ndaw nga te li ngay def ñeme nga ko ma imaginer man bu ma waroon am rek minimum cinquante personnes cinquante wala quarante personnes. Mhm. wala dix ñoom ñëpp ñu xëy ñëw dix personnes mhm. ñu dem seen yoon ma xëyaat suba suba teel ñu toogaat. Mhm. dix wala quinze minimum laa lay wax de minimum. waaye ñoom seen sarax yi kañ laa koy def chaque jour ma leen di encaisser chaque jour li ñu ñëw chaque jour non boo demee di nga ko fekk këram en tout cas di nga rang moom bu sonn mais di nga ko gis. léegi yow chaque jour. te yow dinaa la jox looy sangoo dinaa la jox looy diwoo boo ñëwee rek ma gàddu butéel jox la nga jël. Mhm. waaye yow sa sacrifice yi kañ laa koy def. c'est à voir. fan laay duggee oto dem def sa sacrifice yi te waroo ko boole parce que bokkul. ok. lii moo koy metti kee sëy la kee kër la. Mhm. kee miiras la kee yoonu police la. Mhm. kee dafa am ak problème bokkul kon munoo koo boole. ku nekk ak soxlaam mënul kon mënuñu bokk ay sarax mënuñu. déedéet mënuñu bokk sax jour yi ñu koy defee. ok. kii tey bu ñëwee ba wax la ba ngeen d'accord. Mm-hmm. ba ngeen d'accord ni yàlla nekkee seen seede. Mm-hmm. ba mu yëkkati jox la yow boo xëyee dangaa war a xëy ci moom. boo xëyee. Mm-hmm. yow war a xëy ci moom bu fekkante dafa ñëw suba teel mu nekk ko pare. fay la lépp ba mu mat. nga ne ko ndax mën na noo ànd ma dem defi liggéey bi bu ne waaw normalement war nga mën a dugg ci oto wala mu jël taxi ngeen ànd ko. yow déjà yaa ngi commencé sonn. ndax xataayu marché beeg coono yee biru bi ñu àndati dem ba Bargny da jàppale ma ci liggéey bi nga xam ne yow sa sarax moom fii la dugg liggéey bi moom même bu sottiwul di nga xam ne ni kii moom li mu warloog yow def na ko mhm. muy benn su ne la aw jot noonoo man wóolu naa la am naa ci yow confiance nga ne ko d'accord jour boobu noonu bu dee am nga benn nit walla ñaar boo leen lijjantee ba pare duggal oto nga dem defi ko wala mhm. boo xëyee suba teel nekk ci loolu te man su ma la seetalee ba pare rek leneen loo teg lu ëpp junni am nga ci man sangat hmm? te gëj naa ko ci sëñ Fallou man li may sangoo moom la ñëpp di sangoo <laughs> dee nañ ma ko démb loolu dee nañ ma ko waaw waaw <laughs> waaye li ñëpp di takk man duma ko takk xëy na noonu la ma yàlla bindee comme li ma lay wax ci sama xeet takkuñu diwuñu ñoom ñi ngi ci wirdu salaatul faatih bi rek di doxal charia mhm. mu nekk nag sama fierté ma koy wax tamit fu nekk ndax loolu mbégte la ci man damaa xam ne damaa juddoo fu baax mhm. lii nag ak nattu la mhm. ma di ko nangu barki sëñ Bàmba nangu naa ko assumer man bu desee maag yàlla rek yàlla dana ma jël <laughs> xam naa macha allah euh, yombul daal. yombul ndeysaan. yombul euh, Bébé Awa allah wax ju leer ngay wax wax ju neex ngay wax macha allah. kuy déglu itam dina xam ne lu leer ngay wax parce que dafa am lu lu benn point da tudd ñaar. Hmm. ñaari point yoo xam dafa dafa sensible. mooy sëriñ su bari dañuy gis tey ci wàllu sarax ñuy laaj ay sarax di la defal ay sarax mais réellement ñiy joxe seen sarax wóoru leen ndax seen sarax ñi ngi koy def. te yow wax nga ko léegi ne nga sarax yi nga xam ne yaa ngi koy defal doomu aadama bi dafay ànd ak yow ngeen dem nga jënd te boo koy jënd doo ko waxaale ñàkk waxaale boobu ci sarax yi pour pour mu gën a mu baax la wala lan moo waral ñàkk waxaale boobu noonu ci sarax yi ak tey jii lu tax ñenn ñi duñu duñu du duñu ànd ak client bi pour dem defal ko ay saraxam mu gis mais il préfère mu yónnee leen ñu dem defal ko seen bopp waaw benn dafay fekk client ñoom dañ koy kersowoo mm-hmm. ñett am na ci ñoo xam ne bëgguñu seen dara di feeñ ñuy ànd ak sëriñ boo xam ne dañ ko xam mm-hmm. ñeent tam mën na bañ a am jot mm-hmm. mais su fekkantee lii lépp dalul client bi mën nga ànd ak moom àndal ak moom li ci des boo xamee ne yooyu yëpp mënut a sotti en def ko wàccoog suñu borom ak nit ki nga wàccoog rab sax balaa suñu boroom kooku moom doo wàccoog moom ndax am na loo gàll si sa ndodd li di ko di ko fay nit ki balaa ngaa dem. Mm-hmm. waaye yow di nga wàccoog rab. man nag ci sama côté laa la mën a wax. Mm-hmm. man sama bopp. waaw ndax man sama bopp. <laughs> daf maa doy mu bëgg tubéy. waaye man ndéem nit laa bëggul mu yàgg ma waxatuma laa ak rab. Mm-hmm. li am naa amul man mu may feeñoo nit. du ma teg stress du ma teg sarax bu ma àttanu ndax du ma leb lan teg moom ba mooy teg lu ma àttanu ba ci samay mbokk di ci jote amul sama benn mbokk bu ma mës dimbalee béy walla nag wala xar parce que man maa dul sàggan ba loolu di ma dal mm-hmm. li ma warloog ñoom dama koy def moo tax dal gi des du du neex ndax li ngay gis lépp mm-hmm. waaye xam naa ne moom bu dee man rek mm-hmm. rab du sopp ci man daal damay gën a jëm mag kay di gën a rafet. Mhm. ndax xam nga lu ko waral xol bee baax daal. macha allah yal na yàlla murit gi nekk ci man man damay kersuwoo di def loo xam ne sax dëppoowul ak yoon. ndeysaan. ndax balay sa bii. ndeysaan xaadimul Moustapha Cheikh su ma koy kennal. Mhm. fu kenn nekkul laa koy defee. ndeysaan. moo tax bu ma demee fu ñëpp ne. Mhm. non dañuy xam ne ne gëm sëñ Bamba wóor. walaay ndeysaan. man nag daane ci man. tubarkal la. mu koy kenn fu kenn nekkul te yaakaar naa ne xam nga ne ne. Hmm. ku ma wër rek soxlam la may doyee. Hmm. ndax dëkkuma kenn. ndeysaan ku dul yàlla suñu borom. Hmm. ak ñu may bàyyi xel. <laughs> ñu may bàyyi xel nag samay nitu bopp la. non su suñuy xarit lañ maa ngi yow. waaw <laughs> <laughs> nit ñi tamit ñi nga xam ne ñu ngi dem ci ay sëriñ. Mm-hmm. ñu ma ànd ak dal. ñu ànd ak dal donte woon seen problème da leen di ëpp bopp. Mm-hmm. waaye nit bu mu nangu nit di ko nax. Mm-hmm. tollootul foofu surtout. te alal du pour yàq. Mhm. xaalis du pour yàq. dërëm. Mhm. dafa foor. te sax ci xol. waaw karawu bakkan la. Mhm. nit bu mu nangu di ko yàq. toujours nag sa soxla dina lay ëpp doole. waaye na ànd ngëm tey jàpp tey julli fu mu toll. surtout tegu ci yoonu siraatal mustaqim waaw nan ne ci dëgg daal. ndax nekk ci dëgg dafa wóor. wallaahi ndeysaan. boo nekkee ci dëgg. ngay jubal am xol bu rafet te yàlla rek tax sa mhm. xol boobu mhm. yàlla rek tax nga di ko rafetal mhm. yow da ngay dem ba mel ni sëriñ sax ndax dangay tëdd di gént muy leer naañ ñi wër na sëriñ Touba du du ay caaxaan lu leer ngay wax macha allah xol bu laab waaw mais xam naa ne liggéey daal du ay fo ndeysaan te nit dafa foor trop moo tax man mënuma rang ndax mënuma patam patamee nit par benn benn laay jël comme na ma ko waxee woon ci sama vidéo bi mën naa xëy suba ba ngoon du ma am client mais maa ngi am jàmm mm-hmm. parce que man boo ñëwee toog rek ma seet gis sarax yi mm-hmm. déjà man commencé naa am problème ne man noo koy gérer rek su ne boo xëyee waaw waaw fi nekk nii embouteillage bi suba war a dem àll ak mbooye mii tàmm na de diw de foog ma woo ko xam nga moom it ma ngay seet lu muy koccaatu ci ma yooyu yëpp nga di ko calculer ndax kii pare na pour def sarax yooyu mën la lii laa am jàpp ci waaye ay boo juumee ba liggéey bi sottiwul moom yóbbu la xalaas wala tëdd <laughs> nga dikkaat ci moom wala mu raar la nga yëg ne liggéey bii dese naa sotti parce que loolu tamit dafay am man nekkul li may def yëpp ay sotti de mais bu sottiwul tamit man damaa am motu woola ne la kaa ñu defaat sa ngati waaw lay woowal sama bopp ndax man doo ma fulla soo amee fulla ba jox ma sa xaas ma def ci li ma war lekk ca la ca des ma toog diir gis na lii yëguma ko dinaa la woo ne la ñëwaatal ñu def saraxe wala ñëwaata nga sanguwaat jëlaat nangam ak nangam bi. parce que ki ngay defal yow fi ngay toog après di nga yëg ni li nga ko doon defal sotti na wala sottiwul même bu la woowul. bañ a yëg bañ a yëg da koy yëg parce que la nga def du ay caaxaan. Mm-hmm. boo waxee ne ah fan na dox tuuti waaye lépp dafa rawaat kat bu dee du dëkk. Mm-hmm. booy tëdd ñu la koy wan. moo tax suñu la wanee na normalul mm-hmm. dëgg dëgg nga yàgg liggéey nekk gor am looy bañ. sa ngor du la ko may ndax. man mënuma xeet nit ndax lu ma am nit a ko jox. waaw ah, wala donte woon donte woon nit nag doy na waar. Mm-hmm. donte woon nit dem na lool walaay ndeysaan mais damaa gëm nit nag. Mm-hmm. ndax léeg-léeg ñu jàpp ko xeebu. Mm-hmm. mais ko xeebu kooku indi la kilifa gu mag. man loolu dama koy dund chaque jour. moo tax may sant suñu borom. xam ne suñu borom surprise yi may jox bari na. na yàlla xeeb dolli. waaw te loolu moom. Mhm. yàlla rek laa koy sant. ndax man na may wërsëgalee daal. Mhm. ci ay xéewal yoo xam ne nii xaaruma ko. xaaru ko lu lay bett lay doon. waaw déedéet dëgg dëgg day fekk yoo xam ne xaaruma ko. lu tax soxna Awa ñeme wéetaay. man laa bëgg a sama émission man lu tax <laughs> wala wala ñi suñu xarit yi ñëw di waxtaan si la wala. daa mel ni ñu ngi ci biir jatu jotaay bi sax fi waaw ndax wéetaay dafa neex. wéetaay dafa neex ndax dañuy wéttalu ko yàlla ak jëmm ju tedd ji. ndeysaan macha allah Ahmadul Xadim. kii nga xam ne kenn xamul lu doon kenn xamul. ayatan min ayatillaahi rek. man dama koy kersawoo sax xool léeg-léeg. ndeysaan. <laughs> waaye sëñ Fallou moom dinaa koy téye nii. di waxtaan ak sama xaritam. man nii dañ maa doy man su ma amulee client man doon mën naa nekk ay fan li may ut kay na nekk sama wet ma soxla ko aw ma soxlay dem feneen kooku moom man ñi ma xam ñëpp xamee na ma lool. macha allah ndax man su ma woowee nga ñëw ñu waxtaan ci lan nga ma war a wax ci mbiru àdduna lan laa ciy gañe dara. Mm-hmm. maa ngi ay téléphone ñu may wax seeni problème ma ciy bàyyi xel di ñaan yàlla nu muy sotte. Mm-hmm. loolu rek dafa doy mu bëgg tuubay Mhm. ngay wootanteeg say mbokk jàmm santeeg ñoom loo rek doy na. waaye pour toog waxtaan yaataa yumbe mhm. dëgg dëgg. àdduna la rek. nit nag dangay ànd ak jamono rek waaye am na ci yoo xam ne day doon tolluwaay après danga koy weesu te pourtant nag am naa ay nit ñu baax. Mhm. am naa ay xarit. waaye man daal xam naa ne li ma tënk ba ma toog rek nekk ci wéetaay gi loolu lu neex la ci man macha allah yal na yàlla xet dolli ndaxte su ma xalaatee bàmmeel rek man damay damay damay mujj toog man kese mhm. tele sax dama koy tayal a seetaan ndax xam boo tolloo foo xam ne saa yoo toogee bis mhm. mënoo toog ba jant so te sa xel demul ci dee dafa am yoo xam ne dalay dem ba dalay soof donte woon nag ak maa bëgg àdduna dama koo bëgg de mm-hmm. waaye dama cee bëgg nag def lu rafet ndax àdduna man du ma ne amul solo dama naan am na solo parce que ci laa mën a jaamoo yàlla pour mm-hmm. am lu ma yóbbu mm-hmm. xam nga moo tax dal gi ak wéetaay gi man daf maa neex man loolu loolu man daf ma daf ma daf maa neex daal te fu ma demit damay yàkkamte ñibbi si waat rek ba toog man xalaat li ma def xalaat ki ma waxal ndeysaan toog wéet xalaat dafa baax mm-hmm. prise de conscience waaw ba pare dama nekk nit koo xam ne dama ragal di tooñ ragal def euh, ragal tamit jëw ndax jëw dafa sew torop boo xefee rek jëw yomb la mm-hmm. Mm-hmm. man nag lépp lu ma mën a bàyyi ci loo xam ne dafa ñaaw man soxnaa wax dama koy bàyyi lii nag laa xamagul nu may def ak moom. Mhm. waaye kalaame naa ko yàlla. waaye moom ñaawul ndax mi ngi dimbali jaami yàlla yi ngay xool seeni soxla ak bu baax sax. kon ñaaw ñaaw waaye léeg-léeg su ma xawee tënku ci diina tuuti. damay damay damay damay daf may yéem. Mhm. dama naan maa ngi xaar maa ngi xaar loolu. mais mhm. loolu man rek la engagé. seet gi ne naan baaxul ak mais loolu moom. c'est personnel. waaw kooku moom yàlla rekk moom laa koy moom rek moo ma mën a baal mhm. ginnaaw nag keneen mënumaa baal dama mhm. xam ne lii may def tamit dama ciy dimbali nit ñi boo dikkee danga may fay mhm. man seet mënuma cee mayee virgule waaye cangati moom mën nga cee maye mën nga dinaa ci maye dinaa ci dimbali ay nit ndax man xale duma fay <laughs> man ba 16 ans doo ma fay ndeysaan parce que xale la te xale gàllaaj la mhm. yàlla def tamit xale daf maa bëgg man duma fayeeku xale ku am keek ku ñàkk ki laa yemale mhm. waaye keneen ku mu doon nag may fay rawatina seet bi mhm. te seet bi su ma la seetalee ba xam ne yow mi waruma laa yaram non munoo maa wax lu may dégg <laughs> te seet dafa yéeme nit ñi bëgg nañ ko mais seet day xaawi sutura. non dafa doy waar seet kay. te li naan sëriñ si danoo doy waar ñoom xamuñu ne ci seet bi lan leen di naxee. Hmm. mais pour ku ñëw rek sama liggéey bi laa bëgg nga defal ma hmm. kooku mënoo ko sax noot. kon ci seet bi ci la. bunt yi di feeñee nga nag sama olof leerul mais noot la ñuy wax daal <laughs> maanaam. noot la ñuy noot waaw hmm. ba. yow sa xel day nekk ci sëriñ boobu tout le temps xam nga mhm. loolu dafay am xiirtal la ci seen bopp mais bu la seetulul mënu ko xam est-ce que soit que dalay listixaar wala mu seetal la moo xam suuf la moo xam ndox la boo ko ci dugal ba mu dugal la ci mhm. lu mu la bëgg a def mun na la koo def mais mu ñëw rek ne la sama tànkay metti moccal ma tànk mhm. loolu mën nga koo liggéey jàpp ko de parce que danga nga ko bëgg. Mhm. wala dara waaye pour noot ko mënoo nekk mais nit boo ko seetalee gis lépp mu ngi mel ne ko sang ba mu set rek. xam nga lépp yére bu la neex nga koy mu sol. <laughs> ni ngay defanteeg sa doom sang ko bu la neex nga koy sol. seet gi tam boo ko seetalee ba pare. Mhm. fi mu nekk nii nag saa yéen. macha allah. yoo xam bu rëy bi yëpp am na ci yoo xam ne da koy gis ci biir sax of ko. Mhm. doo ko tudd. doo ko tudd. Mhm. parce que moom déjà moo commencé na laa soof ndax ni mu déparé. Ah, ak li mu wax ak li nga gis bokkul. waaye da koy maandoo. Mhm. mais dafa am ñu ñor ñoo xam ne ci sa kanam la ñuy mhm. kanam wala léeg-léeg leen tuuti. ñun la loolu de xaw nga koo junj sànq waaye génn nga ci. kon xam ñu yàgg nañoo dem ci seet xam na. mais seet daal. macha allah. waaw du yërmaane bi nag torop. dëgg mm-hmm. donte woon nag tiitar la ci liggéeyu nit. Mm-hmm. kii dafa mën seet rekk dan naan mën na faj or que mën na bañ a mën a faj. Mm-hmm. waaw ñaar yu bokkul la seet ak faj. ak du benn gisoon naa benn kilifa bu mag yàlla na ko yàlla yaram suuf la doon seetee pël la bu seetee suuf ba pare temps boobu ay 200 la woon. Mhm. sama temps wu xale loolu. la mu doon xëy di recevoir ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll waaye fu 5 heures jotee arrêté na. Mhm. ku yàlla mayoon. mais seet gi xaas bi ci biir suuf si la koy dugal mhm. léegi kii aye ba indi añ kooku mooy dem jekki loolu moo koy jël moom du lekk xaalisu seet kon kooku xam nga dara jam foor du ko lekk du ko booleeg xaas buñ koy fay kon loolu rek war na laa may liggéey ak seet bokk te boo gisee ma tudd kooku dafa ma wax kàddu boo xam ne dafa am solo ci man mhm. mu ñaanal ma teg ci ma xam tamit li ko yàlla mayoon mhm. ndax man faj na ma waaye nee na mënumaa dindi li ne ci yow waaye man yeewi naa te foo dem yiw dafay ne mais ci moom kese laa mës a gis si àdduna ku dul lekk xaalisu set mu yéemoon ma nag ndeysaan waaw parce que ku yàlla mayoon la macha allah te moom rek mooy sëriñ boo xam ne gane ji naa ko fukki fan ak juróom mu doog maa yeewe la ca des nag dama koy tënk rek. yàlla yàlla barke ba topp la te topp yàlla toppaale ci ñun ñii fi mu ne wax dëgg yàlla ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi seetaan émission bi. Euh, émission bi daf jeex na doyalu ma internet yi doyaluñu. yoon du yem moom alaaku la leen faaw ñu toppaat ko ndax ñu bëri dañuy laaj suivi say émission ak say waxtaan waaye kàddu gu mujj gi ñuy daane leen rek euh, dañ koy dëxañaale ci biir ñu bëri dañuy xool Bébé Awa ci car macha ci ci yaa njaay bi <laughs> tuwaatkaar la ne mhm. ndax kii sëriñ la ndax bind bi melo bi mu xaw leen a yéem waaw xam nga àdduna moom boo boo ci tolloo mhm. dangay def mbiru àdduna waaw mel ni koy dund waaw te tamit dund loo fekkee lay ndeysaan te comme tu moom ay ceddu la <laughs> li nu xam mooy du lu wet daal di jëw duñu def loo xam ne lu bon la mhm. lu bon la nag su ma ko waxee mooy loo xam ne daal lu safaanoog siraatal mustaqiim waaw ak ak loo xam ne sax bokkul ci suñu liggéey colin bi nag <laughs> ba ma cay toll sol naa wax dëgg yàlla lu ma neex parce que nit ñi tamit xam nan ma mhm. du ma ne loolu duma ko def mhm. mais ku ma xam-xam na ne kii sol na lu nekk lu neex nag wax dëgg yàlla sol naa waaye loolu dama cee toll woon rek def ko lépp tolluwaay la rek comme ni ma koy waxee comme lu ma gisoon tey lu ma jaaxal wala nit ñi di ci wax dama naan lii tolluwaay la dana ca jàll nekk ci leneen su ko nar su ko yàlla naree jëmbali man nag lii moom sama cosaan la muy grand mbubu sama ko mës a bëgg dafa bokk ci man sama yëf la tamit du ci colu bi tamit la mu war a jàppee nit ki walla gis ay bagaasam yépp mu teg ko man dama lànk ba ut ku ma jàppale duma ko def man samay mbir dama koy nëbb ba nëbb fu dara nekk ko ndax yéen da ngeen a garaaw wër na Sëriñ Tuubaa da ngeen a garaaw man nag damay nëbb samay mbir man da may mën a gëm te yàlla rek tax ma ñaanal la mm-hmm. ci ma wax nga dégg mm-hmm. bu la doyee baax na nit nee na ma danga may seetal waxaale ma sarax yi ma boole lépp dugalal la ko mën ne ko ma lànk defuma loolu mu ne parce que su ma la fayee seet wala gisaat sarax war la ko yónnee day nekk ñaari fay ma ne ko bu la neexee nga wax li nga bëgg ñu liggéeyal la ko nga yónnee directement moo gën a yóbbu mu ne ma parce que su ma yónnee sama xaas ay ñaari baat ñett lan may wax ma ne ko loolu de yàgg moom la waaye man ni may liggéey boolewuma ko ak kenn te mhm. man 15000 laay fayeeku. Mhm. ma seetal la ba pare wax la sarax nga yónnee waat mu ma liggéeyal la soo bëggee. Mhm. moo tax nee naa ko man soo may gëm dañ may gëm duma la ne man nii laa mel wala melu ma ne. la nga gis daal ba woo na la doy ba pare. te nga xool tam commentaire yi luñ ci bind. que sëriñ boo leen mënta di waxal tam mais xool leen ay comme mu ne ma mais commentaire kii day bind lu doy waar keneen ñëw bind lu. lu jaar yoon mën mm-hmm. na ko waaw mais yow loolu yow li muy wax na la doy rek nga xoolaale tamit commentaire yi mm-hmm. sa xel bu dalee nga dem sa xel bu dalulee nga toog c'est pas forcé ah, dëgg dëgg man de loolu laay liggéey macha que damaa yàkkamtuwul li may def <laughs> yàkkamtuwu ma ko de woon na sëñ Tuba dum woon nag ku bëgg liggéey laa ku bëgg xaalis la mais lii dafa mel ne ay bant bale léeg-léeg yu lay. caw baadu. macha allah kaddu gu mujj gi lu muy doon ci jotaay bi tey soxna Awa. ah sant samay mbokk ak samay am di jàmm. sant samay turandoo doom. Mm-hmm. kenn ki mi ngi tudd Momar Gueye. Boubacar Thioy. Mm-hmm. damaa am nag ay nit yu baax. Mm-hmm. dama am ay nit yu baax. que mënuma tàggandoo ñëpp. Mm-hmm. dama koy dëxante. Mm-hmm. waaye ñaar ñi danoo nekk ñoo xam ne ci man. Mm-hmm. rëy la danu maa bëgg. xam samay defoo ba pare ànd ak man ci samay def kon bëgg foofu la mën a yem. ñaar ñooñu nag samay turandoo doom la. ñi ci des dama koy tënkal <laughs> waaye nag dafa benn jigéen boo xam ne. danoo tolloo jamono. mu nekk sama morom ñi ci des dan ma mag ñi mën nañ maa jur billaay dëkk tënk naa ko rek nan ma ko jéggal gërëm naa ñëpp ñëpp waaye nag Ajana Fall moom mhm. mënuma koo bañ a tudd ndax danoo tolloo jamono Pikine xatoon torop ci ma mhm. te mosuma koo defal benn terrasse mu won ma ngor gu rëy goo xam ne mhm. nee naa ko yow nag maag yow ba àjjana firdawsi dëgg la nag toujours danaan ma yow nit ku baax nga mhm. waaye man damaa nekk nit koo xam ne lebal ma yombul àjjana mhm. daf ma lebal lu baax damay xëy nag di ko fay ba sàngoo suuf mhm. ndax defal ma lu baax ci sama moroom man di gisuma ko. ci moom laa amee Madou. yee ajana moom wax dëgg yàlla ndax kooku daf ma bëgg kër këram yëpp bëgg ma mais yàlla boole na mag ay nit ñu embarqué. nit ñu embarqué ñoo xam ne mënuma leen a lim. ndax xëy na ay kilifa lan duñ bëgg peut-être ma tudd wax dëgg yàlla. waaye ñoom xam nañ ne danoo bokk ci man. ndax kenn ki. li tax ma téye ko sama baay da koo ñaanal sama kanam. Mhm. sant bi rek laay wax nag seen yam mhm. foofu. ndeysaan. ki tamit faar rek laay wax yam foofu mu nekk sama nit ñii de man daal mënumaa nit. macha <laughs> yàlla xeb doole. sant tamit sama sëriñ sëñ Abdou Karim. macha allah ba Makka. Mbacke Ba lay Saburi moom. sëñ Cheikh Oumy. ndeysaan mu sëñ Salim. Ba lay Saburi. kookoo tax ma gis sëñ Abdou Karim. ndeysaan. sëñ Seex moomu nag nekk nit ku ma wekk. Mm-hmm. ndax nit ku baax la. Mm-hmm. nit ku dal. Mm-hmm. man dal gi may gis sama bopp dama koo gis si moom. yàlla def tamit mu tuddee ma awa buso. nee naa ko awa buso bi nag léegi dafa law sax. ma jaaxal waaw waaw soxna awa buso ndeysaan. gërëm kii toog. ndeysaan sama rakk ju baax ji. suñu koy gërëm. ndeysaan. di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. ak sutura su bari. amiin. yu saawaan baawaan. amiin yaa rabbal yàlla barkeel liggéey bi. lépp te fekkee. musal ñu ci bët bu bon ak làmmiñ bu bon. amiin yaa rabbal jërëjëf. jërëjëf soxna Awa mu Serigne jërëjëf euh, suñu mbokku internet yi nga xam ne ñoo suivre émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro. sant itam bu baax a baax askanu Sénégal góor ak jigéen mag ndaw kenn ku ci ne rek foo mën a nekk di ñaan yàlla sama borom subhanahu wa taala lay yitteem ak bëggam ak mébétam suñu borom mi nga xam ne moom moo am mën sañ te du jeexal dara yàlla na lépp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye santaat ko bu baax a baax moom soxna Xawa ñaanalaat ko bu baax baax suñu borom dolli ko taxawu doolu lay guddal fanam gën a wéral ay cëram ba mbooleem yéene yi nga xam ne naan na ko rek sama borom yeggali ko lépp ci daraje Cheikh Modou Fadal Mbacké suñu yaakaar mm-hmm. man nag day sama xarit di sama genn wàll macha allah bi ndax danoo bokk sëñ Fallou waaye bi ñu bokkee sëñ Fallou ëlbatikowaat wax dëgg yàlla di may wax rek yéen a ko gisal seen bopp dal gi yar yi teggin gi macha allah rabbi ñaan yàlla sama boobu sama borom gën koo taxawu ci lépp rek loo xamante ni ñu ngi koy bëgg di ko mbéyal sant ñëpp rek wax dëgg yàlla fas yéene leen jox dig daje incha allah rabbi. ci barkeb say xi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama say xi faddilu mi yàlla bismil ilaahi ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaama yàlla